ngeen nekk benn ci seen biir daal di bëggante ba pare daal di mobiliser yéen kay gi de la Soleil nee na njiitu réew mi di président Macky Sall dana nekk candidat ci élection présidentielle 2024 waaw wala déet jamono mbir maa gën di leer loole la Soleil moo ko wax journal bi la Tribune nee na njiitu di président Macky Sall ci diwaanu Paris la France fa la daal di li nga xam ne mooy candidature am yéen kay gi di réew mi ma di président Macky Sall maanaam du ma wax oui du ma wax non waaye nag jamono ji Macky Sall jege li nga xam ne mooy wii bi moom njiitu réew mi di président Macky Sall lu jëm ci wàllum candidature ma ci élection présidentielle benn jéego rek bu ko jéego maanaam yegg ca mbir ma ndax niki démb moom njiitu réew mi daan nay wax ne danañu des ci nguur gi ci bëgg-bëggu askan wi ndax li mu liggéey ci réew mi moom njiitu réew mi nee na nag samba bu yi nga xam ne ñoo bëgg a taal réew mi ñooñee tamit danañu jàkkaarloo ak ñooma yéen kaay gi di direct news xëy duñu xibaar ñu njiitu réew mi di président Macky Sall moom nag daan nay sàkku ci nga xam ne ñooy ay militant ñu daal di nekk benn ci seen biir daal di bëggante yéenante jàmm kenn déwén ci sa morom la nga xam ne moo ca des loolee ay tactique la ci lu jëm ci wàllum politique te bu sa desee ko lijjante yéen i kaay gi di Les Échos xëy ñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature Macky ba léegi clair obscur amul lenn loo xam ne lu ci leer la yéen i kaay gi de Le Point xëy ñu xibaar naan ñu Abdoulaye Dieye mi nga xam ne moo jiite AIBD moom nag dafee li nga xam ne mooy ab pétition bëgg lu toll ci benn million ci ay signature ngir nag président Macky Sall mën a waat ci élection li nga xam ne moom la jot a am ni signature signature am na lu toll ci huit cent mille signature nee na ci mois de juillet bi nga xam ne moom la ñu dëgmal un million bi dina mat su ko defee Macky Sall ñu koy poussé ñaax ko mu sampan dëndam ci élection présidentielle 2024 ba tey ci biir journal bi de Le Point Abdoulaye Dieye daan wax ne waxtu tànn wi heure tànn jamono ji moom moo jot diggante ki nga xam ne ab tabaxkat la ak ki nga xam ne ab yàqkat la i autopont ak la ñu ko fi mën a bàyyee di kaay gi di bés bi xëy wax ci lu jëm ci wàllum dialogue national bi nga xam ne dialogue ba jeex na surnal bi di Vox Populi nee na am na lu toll ci fukk ak ñaar ci point yoo xam ne déggoo nañu sa am na ci ñeent yoo xam ne déggoo amu sa yéene kaay gi di Source A xëy ñu xibaar naa ñu rapport bi jëm ci wàllum dialogue national bi ñu ko jébbal njiitu réew mi samedi ji nga xam ne moom la ñu dëgmal le témoin yokk sa ne bu benn waxtu jote la ñu koy jébbal njiitu réew mi journal bi du l'Observateur xëy di ko dëggal yéene kaay gi di évidence nee na lu jëm ci mbiri Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall loolee réglé nañu ko waaye Ousmane Sonko dañu ko sacrifié qualifié yéen kaay gi de Le Quotidien ñu xëy fekk fa Aminata Touré nee na nag bàyyi Karim Wade muy bokk ci élection présidentielle te yoreel Sénégal lu toll ci 138 milliards loolee Bimbang Satala Kurus bëgg gàllankoor Ousmane Sonko mi nga xam ne mbirum politique rek la lal ci ndoddam loolee lu doy la Aminata Touré nee na askanu Sénégal jamono ji bay boo ngeen dëjël 138 yi nga xam ne Karim Wade moo ko waroon a versé ci trésor public mbiri ate Karim Wade loole nag bëri na ay conséquences yoo xam ne maanaam am na ca yéen kaay gi de la na xëy duñu xibaar naan ñu Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall danañu mën a bokk ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la journal bi nee na nag lii ndax du ab dil boo xam ne mën na leen a lor ëllëg ab laaj la yéen kaay gi nee na am na ñaari sàcc ñaari voleur deux voleurs yoo xam ne dañu leen a jàpp jamono ji ñu daal leen di setal ba ñu set wecce ay baari yëgoo ci lu soxal wàllum politique Macky li nga xam ne jamono ji moo ñor Sénégal te Macky Sall waroon ko lijjanti mooy lu jëm ci xaalisu covid 19 bi nga xam ne dañuy wax ne dañu ko luubala ak ndaw ñi nga xam ne jamono ji dañu sume amuñu liggéey ak lu jëm ci wàllum dund gi nga xam ne cher na ba jéggi dayo loolee la ñu doon xaar Macky Sall li jënti ko yéene kaay gi di direct news xëy diñu xibaar naan ñu manifestation yi nga xam ne coalition Yewwi Askan Wi bëggoon nañu ko amale ci 25 juin tere nañu leen ko ndax nag nekkul manifestation boo xam ne bu ëpp la ndax jamono ji nga xam ne moom la ñu toll ak tabaski gi nga xam ne moom moo dëg ma la nga xam ne ñooy jaaykatu xar jamono ji tiit nañu ngir andi seen xar ci diwaanu Ndakaaru waaye tamit ñi nga xam ne ñooy marchand ambulant yi jamono ji ñoom tim tiit nañu lool ci dëkk bi ak tëbaski gi nga xam ma la yi ba ñi ne ñooy tailleur ndax manifestation yi nga xam ne moom la ñu génn bëri na loo xam ne yàqoon nañu ko ci dëkk bi bëri na loo xam ne taaloon nañu ko fee réew mi quotidien nee na préfet bu ndakaaru lépp la tere ndax F24 ñoom place de la nation fa la ñu bëggoon a dajaloo préfet tere na ko ñi nga xam ne ñu yoowal fajiri place de l'indépendance fa la bëggoon a dem préfet tere na ko ñi nga xam ne ñooy waa Yewwi Askan Wi dañoo bëggoon a dem cité góor gi libéré Ousmane Sonko préfet tere na leen ko yéenekaay gi de Le Quotidien yor yor xëy di ñu xibaar naan ñu Juan Branco di avocat Ousmane Sonko daan nay porter ca diwaanu Paris la France waaye tamit daan nay ci ñi nga xam ne ñooy waa CPI ngir nag ñu ubbi enquête ci manifestation yi nga xam ne moo fi amoon fan ñu génn ak ñi nga xam ne ñoo fi Général Moussa Fall yéenekaay bi nee na Juan Branco daan nay am lu toll ci ñeenti junni yu fekk juróomi téeméer ci élément de preuve am lu toll ci téeméer ak fukk ak ñaar ci ñoo xam ne njort nañu ne laale nañu ci yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na Juan Branco tey jii dana janoo ak taskatu xabaar yi yéenekaay gi de la mandat ñu xëy fekk fa réseau des universitaires républicains ñuy wax ci lu jëm ci wàllu médiation africaine bi nga xam ne doon nañu ko amal fan yi ñu a a am ci lu jëm ci wàllum diplomatie ci Sénégal ak personnalité sénégalaise bi waaye nag loolee mu nekk ndono loo xam ne ñi fi nekkoon ay njiitu ñoo ko fi bàyyi di Léopold Sédar Senghor di Abdou Diouf ba ci maître Abdoulaye Wade njiitu réew mi di président Macky Sall ñëw dolli ci lu bëree bëri rawatina jaar bi nga xam ne jaar na ko ci Union africaine ak liggéey ba mu sa def leadership diplomatique bu Sénégal jamono ji kenn laam-laameetu ko yéen kaay gi di Walf Fadjri xëy duñu xibaar naan ñu askan wi nga xam ne ñoo yeewoo Ziguinchor jamono ji jaaxle nañu ba mara détaillé sonn nañu ndax li nga xam ne mooy démbék dikk bi dafa daal di tëggateem maritime senegal dem dikk demul diggante Ziguinchor ak Ndakaaru bato yi nga xam ne ñoo doon jóge Dakar di dem Ziguinchor bato yooyee demul jamono ji bato yi doon jóge Ziguinchor doon ñëw ci Ndakaaru dañu ko daal di suspendre yéen kaay gi di Sud xëy di ñu xibaar naan ñu Tabaski ren gi nar naa métti ndax bu ñu waxante dëgg xar bëriwul te xar yi nga xam ne moom lañ fi gis cher na ba jéggi dayoo yéen kaay gi de Le yi nga xam ne ñoo nekk ca diwaanu Goudompo jamono ji jaaxle nañ ba maara day taal yi ndax ñoom nee nañu ne mooy Oliver